Famara Sané maa ngi lay nuyu. Ah, maa ngi lay nuyu merci beaucoup madame eh, maa ngi nuyu tous les auditeurs de Rewmi FM. voilà Famara Sané nga nekk analyste politique laaj bu njëkk buñ lay laaj installé nañ euh, quatorzième législature ni Guinée démb coow li nag daal di bari en tant que analyste politique naka nga gisee processus installation wu quatorzième législature bi. oui comme ñun ñëpp gis nañu démb lu xewoon euh, assemblée nationale et vraiment euh, aucun Sénégalais kenn kontaanul loo xam ne moo doon déroulé la euh, démb ci assemblée nationale parce que euh, comportement député euh, dafa wone comportement comme si ay xale lañu ou bien xamuñu vraiment importance ou bien utilité bu assemblée nationale ak ñoom seen taxawaay donc ñoom war ñu xam ne tey ñoom dañuy ay autorité lañu dañuy représenter le peuple sénégalais peuple sénégalais ne moo leen woote pour ñu vraiment euh, ñuy représenter leen parce que ñi ñu ngi ci démocratie représentative boo xam ne ñëpp mënuñu dem assemblée nationale donc comme comme ñëpp mënuñu dem assemblée nationale euh, am nañu sañ-sañ di di di di tànn ay ay yeneen sénégalais ñoo xam ne ñoo ñuy représenté foofu pour ñu défendre intérêt sénégalais mais malheureusement li ñu gis euh, loolu vraiment dafa déshonorer le Sénégal Sénégal boo xam ne euh, pays dëkk boo xam ne euh, ñu ngi koy cité à travers le monde comme une référence au plan démocratique et ci dëkk teranga bi démb moom Euh, dafa mel ni euh, ñun suñu suñu représentant yi ci euh, assemblée Euh, dañ nekkuñu ay sénégalais quoi. Euh, Famara Sané ñu euh, gis ni opposition bi muy politique moom wax nga ko sànq mooy bi muy campagne plutôt la mu doon laaj mooy ñu jox ko majorité ci assemblée nationale mu mën a indi assemblée de rupture tey ji est-ce que sax cohabitation amul waaye lim bi nga xam ne opposition bi takku na moo waral bras de fer bi tey ji lañu gis démb ca assemblée nationale xeex xeex bee xuloo bee xiiroo bee ŋaayoog ak ni ñu sax falee euh, njiitu assemblée nationale bi est-ce que mën nañu woowee euh, lii assemblée de rupture est-ce que lii la askan wi bëggoon waaw wala déet. non je pense man euh, je pense que mënul nekk assemblée de rupture assemblée de rupture pour mu mën a nekk assemblée de rupture il faut ñu dugg ci liggéey bi. bu ñu tàmmalee di liggéey bi ñu gis ñoom naka la ñuy liggéey ci la ñu mën a wax assemblée de rupture ou bien du assemblée de rupture mais démb lu xew démb loolu question de procédure la question de procédure parce que ñoom ñëpp ñu ngi dem ñu ngi dugg ci assemblée ci ci ci ci ci début boobu dañu war a mettre en place ay ay ay structures yoo xam ne moo war a gérer assemblée nationale donc ku nekk dafa inter défendre intérêt ñoom ñëpp xool ñu intérêt intérêt euh, Sénégal xool ñuy intérêt population dañuy xool seen propre intérêt seen intérêt parti politique te à commencer par le président de la République moom moo commencé di di di yàq euh, procédure bi parce que euh, à travers ses choix donc opposition ci yooyu la gis au lieu ñoom ñoom tam dañuy dañuy daanu ci piège président de la République parce que moom président daf leen suscité et ñoom ñu jël affaire boobu ñu def ko seen combat alors que président il voulait prendre toutes les dispositions disposition pour mun mu choisir quelqu'un qui lui sera fidèle donc ci procédure yu mu bëgg jaar affaire bi ci euh, opposition au lieu ñu ñu mener un combat démocratique non dans euh, les armes qu'ils ont utilisées n'honorent pas ñoom armes yooyu moo tax aujourd'hui ñëpp kontaan ñu c'est ci seen comportement parce que dañu tombé ci piège président de la république léegi nag loo xam ne au sein du parti au pouvoir sax ñoom am na ñoo xam ne d'accord ñu procédure boo xam ne euh, ou bien les choix du président du président président de la République mais ils étaient obligés dañu mun euh, de défendre leur parti d'abord donc loolu moo tax de tey ñëpp on parle de l'opposition mais également le président de la République a une part de responsabilité dans cette cacophonie. voilà beneen laaj boo xam dinañ la ko laaj euh, Famara euh, Sané di tabb gi ñu tabb docteur Amadou mam Diop bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar yow déjà naka nga gisee ki ñu jël euh, jiital ko ci assemblée nationale. je pense que c'est un Sénégalais. comme tous les Sénégalais donc euh, yàlla may na ko yàlla euh, je prie à ce que vraiment mu mën a gérer à cette assemblée parce que moom tam militant de première heure là du partie euh, APR. donc euh, il a dafa bénéficier euh, de la confiance du président de la République mu nommé ko mu nommé ko président de l'Assemblée nationale mais c'est vrai que euh, ñu bëri seen xalaat seen seen seen seen regard dafa dafa tourné woon ci ñeneen militants yi parce que ñoom ñoo woone seen place au sein de de l'APR ñoom ñoo woone seen place au sein de la coalition Benno Bokk Yaakaar donc ñu bëri dañ yaakaar ne peut-être que ñoom lañu le président de la République war parmi ces gens-là il devrait choisir quelqu'un d'autre mais malheureusement président aussi dafa am ses jeux ses ses ses, ses raisons dafa am euh, ses choix et il a jugé nécessaire de choisir quelqu'un mais c'est un Sénégalais aussi un militant de la première heure maintenant on attend on l'attend au travail donc bu bu tàmmalee liggéey bi nu muy liggéey nu muy gérer assemblée bi Euh, dinañ xam ne vraiment c'est quelqu'un de mature ki nga xam ne euh, il est dans des dispositions pour pouvoir amener ce, ce cette assemblée nationale dans à bon point à euh, bon point. Euh, mm-hmm. maintenant. Wow. Le, le problème c'est que euh, peut-être que les gens. D'aucuns diront que oui, euh, ce n'est pas. Euh, ils ont des raisons pour le contester, mais tout ce qu'on peut retenir, c'est que c'est un Sénégalais. voilà léegi ñu gis ni euh, Aminata Touré wax nga ko sànq moom lañ doon xaar ci postu boobule en tout cas elle a mouillé le maillot ci campagne électorale bi naka nga gis geste bi nga xam ni Aminata Touré def na ko démb maanaam voté wul pour candidat bu Macky dafa génn salle bi avant le vote ñu gis ni sax dem na ba changer profil euh, Facebook bi nga xam dafa defoon APR euh, naka nga gisee euh, geste bi nga xam ni Aminata Touré démb def na ko muy wane ni àndul ci choix wu docteur Amadou Mame Diop. mais moi ma man maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi saluer je salue beaucoup euh, euh, le comportement de Aminata Touré loolu wane na ma manifestation de la démocratie da ci démocratie mag yoo xam ne ñoom yàgg nañu ci démocratie par exemple France États-Unis ainsi de suite le président de la république balaa muy def dara de, de il va demander c'est-à-dire euh, des des laaj ki président c'est-à-dire sinon les députés députés ñu mun a adhérer à sa proposition peut-être que euh, quelque part ku d'accordul da nga parce que le choix fii c'est un choix libre parce que ñu ñu ne ah de kii ah, vote bi l'acte le plus élémentaire de la démocratie loo xam ne d'accordoo da nga ko on ne devrait pas, si un député, un représentant d'un peuple, d'une collectivité bien déterminée ou bien de toute la nation sénégalaise, loo xam ne yow dokkaro d'accord waroo dem ci wat euh, waroo participer ci ci ci ci farce politique boobu donc moom dafa jugé nécessaire comme euh, euh, moom gisul boppam ci ci ci ci choix boobu alors Euh, le mieux c'est de ne pas participer xam na influencer le vote pour que euh, ñu bañ a wootee Amar maamu Amadou Diop euh, Amadou Diop mais lu mu mën a def mooy ko mooy comme les autres li ñu ngi abstenir moom elle préfère ne pas assister à ce vote là donc c'est un choix démocratique moi je pense que euh, on ne doit pas la condamner elle a c'est un choix qu'elle a fait et tout le monde doit la comprendre dans ce choix là. am na ñuy wax ni Aminata euh, Touré dañ ko trahir est-ce que mën nañu jàppee lu ni mel trahison waaw wala. trahison mën na nekk trahison parce que c'est euh, une militante qui s'est battue euh, donc. Ah xeex na xeex na xeex na ba am beneen position tey bu ñu waxee Aminata Touré c'est parce que moom dafa muyee mayo bi donc am na liggéey bu mu bu mu entamé ci parti eh, APR mais également ci ci état du Sénégal ci gouvernement Sénégal loolu moo tax tey ñu wax Aminata Touré Aminata Touré donc ñu bëri dañuy gis ne eh, campagne bi moo ko mënee eh, avec beaucoup de difficultés parce que ren campagne bi dafa opposition dafa dafa dafa organisé de telle manière que il était difficile pour que parti au pouvoir mu mën a gagner comme ni mu doon gagner habituellement mais elle elle s'est battue jusqu'à avoir avoir les quatre-vingt-trois députés alors ñëpp dañu ne comme moom moo jiitu woon campagne boobu moom moo waroon nekk président de l'Assemblée nationale bu nekkuloon président de l'Assemblée nationale ou bien quelqu'un de ñoo xam ne koo xam ne euh, moom tam daan na liggéey ak Aminata Touré les collaborateurs les autres ministres euh, ou bien les autres militants de l'APR mais malheureusement tel n'a pas été le cas loolu moo aujourd'hui Euh, les certains. jàpp ne dañ ko trahir. Euh, hmm. euh, waaye dañ yaakaar ne dañ ko trahir comme lu ñu comprendre quelqu'un qui est sorti de l'anonymat moom ñu propulsé ko au devant de la scène. Euh, ñu wax ci président wu groupe euh, parlementaire yi ki lay di maître Youm euh, moom mooy président bu groupe parlementaire benn Bokk Yaakaar Mamadou lamin Thiam nekk président bu groupe parlementaire Wallu ak biram Souleye Diop nekk président bu groupe parlementaire bu coalition Yewwi Askan Wi ban jàngat ngay am ci njiitu groupe parlementaire yi Ah, boo boo xoolee euh, président groupe parlementaire euh, Yewwi Askan Wi moom moom moom xaw ma parcours am xaw ma euh, je connais pas son militantisme avéré au plan politique mais boo jëlee le président du groupe parlementaire de Benno Euh, c'est quelqu'un woo xam ne nekkoon ministre donc il a une certaine expérience politique mu yàgg na ci parti bi il a côtoyé le président je pense qu'à un moment donné nekkoon na sax directeur de cabinet du président de la République c'est quelqu'un qui est au cœur des affaires je pense que euh, nous, il a également un homme de droit Euh, yaakaar naa moom mën na gérer groupe boobu quoi parce que il a une certaine crédibilité il n'est pas aussi contesté au sein de son parti mais même également au niveau de la coalition boo jëlee le, le président du groupe parlementaire de Wallu kooku je pense que c'est le meilleur parmi les meilleurs donc on peut dire parce que yàgg na nekk député yàgg na nekk membre de l'Assemblée du bureau de l'Assemblée nationale et de, du bureau élargi de l'Assemblée nationale nekkoon que c'est quelqu'un voilà bien le fonctionnement de la de l'Assemblée, la structuration de l'Assemblée, le fonctionnement des groupes parlementaires. Donc, euh, quoi que je pense qu'il a les meilleurs, le meilleur profil. Donc, euh, je pense que même le gars de, euh, de euh, euh, le président pour koo xam ne waaye yeewi la kooku la ñu choisir je pense que boo gisee ñu choisir ko xam ñoom war nañu xam peut-être que mën na représenté tout le monde mais je sais que pour les deux vraiment c'est un bon choix un bon choix euh, pour celui de Benno et celui de Euh, de wàllu. est-ce que mën nañu jàpp ni nu ñu tabbee docteur Amadou maam Diop est-ce que légitime na du fait que euh, député yu coalition Benno Bokk Yaakaar euh, ñoom rek ñoo pratiquement jot a voté est-ce que kon am na légitimité waaw wala déet. non am na légitimité. parce que man pour man am na légitimité parce que c'est un Sénégalais. c'est un militant de la paire de la première heure am na légitimité am na légitimité lépp loo gis début mm. lépp loo am début peut-être que moom dañ ko propulser mu au devant de la scène mais comme étant étant que ah, sénégalais la donc am na légitimité un militant de la première heure peut-être que euh, ci son militantisme nekkuloon au devant de la scène ba ba ñëpp sénégalais yi xam mais aussi ñi condamné ñoo xam ne dañu ne amul légitimité ils ont quelque part aussi raison parce que ñoom euh, dañu yaakaar ne ñu am na ñoo xam ne ñoo porté woon le combat de l'affaire ñoo xam ne ñoo porté woon le combat de de de Benno de Benno Bokk Yaakaar donc ñoom les gens s'attendaient à ce que ñoom ces derniers là ne soient, soient par exemple comme Aminata Touré ou bien euh, Amadou Ba ou bien tant d'autres mais malheureusement euh, c'est quelqu'un qui est venu de l'anonymat koo xam ne même si yàgg na mais ñu bëri xamuñu ko loolu moo tax gars yi ils beaucoup de beaucoup de militants sont frustrés parce que mënuñu comprendre le choix là Euh, dernière question Famara a Macky Sall naka la mën a euh, gouverner ak euh, xeetu assemblée bi ñu gis ni déjà assemblée bras de fer la assemblée bu nara naqaree jiite la Macky Sall naka lay gérer ak bile assemblée. non président bi yërëm naa ko parce que assemblée bi dina metti gestion assemblée bi dina métti lu tax dina métti parce que ñoom amuñu majorité absolue ñu bëri dañoo ne oui ils ont la majorité amuñu majorité absolue majorité absolue mooy waa mu am les trois cinquièmes de de l' assemblée mais amu amul majorité absolue cela veut dire que am na yeneen loi yoo xam ne ñoom loi yooyu ñu jàll au niveau de l' assemblée parce que loi pour ñu loi yooyu muy jàll il faut mu am trois cinquièmes des votants donc c' est à dire assemblée bi dina métti bu chaque parti veut tenir compte de ses, de, de, de, de ses intérêts sans tenir compte des intérêts du parti. Si le président de la République euh, veut mettre au devant de la scène les intérêts de son parti, de sa coalition, de ses propres intérêts, au devant euh, par rapport aux intérêts du peuple, alors euh, dinañ gis ne opposition tam day bañ donc bu amul bu amul collaboration euh, di euh, la gestion de l' assemblée sera difficile loolu moo tax man dama yaakaar ne assemblée dina nekk assemblée de de de concertation une assemblée de de rupture pas de rupture mais de de de de contradiction la contradiction bu amul continuité de sinon de de rupture du mois parce que le président de la République il est obligé de négocier di dina négocier ak opposition dina dialoguer dina waxtaan ak opposition pour mu mun a régler certaines choses pour que assemblée fonctionne bu ko deful rek ak opposition mu agrippé sur ses sa Euh, assemblée dina am blocage te blocage boobu dina mun na amener euh, vraiment ñu dissoudre assemblée parce que le nouveau président qui va qui sera élu en mille vingt quatre à la latitude de pouvoir vraiment demander pour que mu mën a am large majorité donc s'il est dans cette dynamique de chercher une large majorité dina dem dina laaj pour que vraiment assemblée bi ñu dissoudre ko ñu dugg ci beneen euh, élection boo xam ne ça pourrait lui amener une majorité absolue. Famara Sané euh, Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal. merci beaucoup madame merci maa ngi tam maa ngi leen di eh, eh, remercier eh, ci ci participation à ce débat politique. voilà may fàttali analyse politique nga sa xam-xam dafa màcc ci wàllum politique. merci beaucoup madame merci.